bismillahi arrahman wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin il amin wa ala alihi wa saxaabatihi alxurri almayamin wa ala xayri xadimihi di lxabli almatin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin bokk julli di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw nu santee borom subhaanahu wa taala julli ci Mustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal ashaykhul xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di balu xàq ñépp te di ko bal ñépp ñaan sun moom boole nu jéggal li nu ko tooñ ci tooñ li dox ci sunuy diggante ci ay xàq it mu wuutu nu ci fayal na ko innahu ala dalika qadir wa bil ijabati jadir ñaana Seex Muhammadul Muntaqa sun boom bàyyil nu ko fi mu yàgg fi lool wér lool ba àggale mboolem ay naalam ak yéneem bëgg ñaw nag tey ci dénk bi nga xam ne Sëñ ko dénkoon sàmbalaw bi njaay buur ba jolof muy dénk ba am solo boo xam ne képp ku jiite rek war nga ko warnga ko war nga ko xam te jàpp ko te dund ko bi Sëñ Tuubaa nekkee Jolof Mbàkke Bari mu ko tàmbalee ci njëkk ko xamal ne ko li nga yor soxluwuma ci dara soxlaa lu ma la dara doyloo naa li ma yàlla defal xam ne mi ngi bàyyi ko ci mi ngi jëm ci buur ba jolof sàmbalaw bi bàyyi ko jaamu boroomam bi doyloo li ko yàlla defal ci xéewal min abdi mawlaahu al muktafi bi ma awlaahu ne ko sa yow sàmba la bi may may waxal soxlaa lu ma la dara doy loo li ma yàlla defal ci ay xéewal <coughs> loolu am njàng la ne ko may ko ci nag ahmadun muhammad al mbakki la ci jitu mooy nuyu la bu ma sëkk ak ju matale di la xamal ne ki la indil bataaxel bii daf ma dikkal bàyyi ko ci sa suuf wax ne yaa ko yabal ne ma yaa ngi may nuyu tey sàkku ci man ak waar kon Samba Sow moo ko moo ko sàkk moo sàkkoon ci sëñ bi mu defal ko ak waar ne ko dafa bàyyi ko ci suuf dikkal ne yaa ngi may nuyu waaye yaa ngi sàkku ci man waar ci la bind nag jëme ci yow lii li ci njëkk ak xamle la mooy xamal la ne àdduna day du la jox lu du lum nangoo ci sa moroom lépp àdduna lépp lum la jox ci sa ci sa moroom la ko nangoo lépp lu mu jox sa moroom ci yow koy nangoo kon àdduna lenn la yor kom ko jox ba yàgg mu nangu ko ci moom jox ko keneen kon lum la jox ci kenn la ko bàyyee la ko jële waaye ëllëg lu mu jox keneen ci yow koy jële ne ko àdduna moomu nag amut wenn melokaan léeg-léeg mu dimbale la ci sa kaw morom nga féete ko kaw tiim ko yilif ko léeg-léeg mu dimbale sa morom ci sa kaw keneen eh, not la tiim la yilif la adduna léeg-léeg mu indi leen mbégte mbégte wax da ngay jàpp ne dootu jaax ba nga dëkk di ree waaye léeg-léeg itam mu indi la aw naqar aw tiis ba ba soppi ko ay jooy wataaratan tudhikuka wataaratan tubkiik waaye waxtu wala ree nag bu la reeloo bul waru mukk ca jooju jàpp ne lu dul jeex la na nga xam ne ay pexe la lal ca suuf ndax ab workat la adduna workat la ab fexe waakoon la na nga jàpp ne bu la reeloo rek ne suuti rek ndax dañuy wax adduna kum dogal tubay ngemb laa nga lay xaar kon jàppal ne nes tuuti rek dana soppi ko ak njëkk eh, nga jis wor ya gis pexe yam la doon lalal waaye li ma li dénk nag mooy nga farlu ci dimbale néew ji doole yi ñett la tudd wa alayka bi i'anati du'afaa'i wal fuqaraa'i wal masaakin ad du'afa mooy ñi nga xam ne dañoo néew doole ci seen wàllu yaram ñam gàllankooru yaram nga xam ne mënuñu seen bopp dara ñooñu nag leen dimbale taxawa leen nga xam ne yaa leen jaboote fuqaraa yi mooy ñi nga xam ne ay boroomi kër lañ yori njaboot te seen loxo jot seen gannaaw ñoom it sax njaboot lañ yaa leen war a taxaw yaa leen war a dimbale almasakin mooy ñi na ci mbedd mi tàllal loxo nga ne amuñ dara ñett ñoo ñëpp nanga leen taxaw ndax taxaw leen mooy nga tibb ci kees gi di leen jox déedéet bu dee doo afa yi moom man nga mën nga leen defal noonu mooy di dimbale ci ci kees gi waaye bu dee fuqaraa masakin moom da leen dimbale mooy ku ci toll ci war a jàng nga taxawu ko ba mu jàng ku ci jàng ba noppi nga fexe bañ formé ko ku ñu formé ba nekk fexe ba am liggéey di di di di di di sàkku lew di tur am ñaqam nga xam ne mooy teddal boppam ndax ka nga tibb ci kees gi jox ko da koy lekk mu jeex mu soxlawaat ko waaye ki nga fexe ba mu am mbéccam boppam di ci yëngutu day dal boppam ba ëllëg mu bokk ci ñuy dimbale kon ka ngay dimbale kon noonu nga koy dimbalee mooy la wolof daa wax ne may la jën jàngal ni ñu nappee ko gën ne ko nag maa ngi lay moytu ndikaloon nag nga nga moytu jàng bul jàng mukk kilifa du jàng bokk na ci jàng nag ku farag yow nga yëg teg ca kaw lu def mu jikko ko farut yow nga jëfandikoo sa doole ci kawam lu wax mu diw ay lu jëf mu diw ay kon na moytu jàng na moytu tooñ wal inkifaafi anil jawri wa zulmi bokk na ci tooñ nag jël àq jàmbur jox jox ko keneen wala jox jox nit lu mu yeyoowut ci misaal nga jox ko ndomb tànk goo xam ne la nga koy dénk xamu ko mënu ko loolu ci tooñ la bokk wala jalgati xàq jàmbur wala jël doole yala ji yàlla jox di ko jëfandiku ci sa ci sa kaw askan loolu lépp ci tooñ la bokk na nga ko moytandiku na nga xam ne ko tooñ da nga réccu ko jàngit ci daanu nga jëm faman zalama nadima wa jaara baara ñaan ko jàng ku ko tooñ ku nekk na xam ne eh, bisa ngi ñëw da waaye ko jàngit ci daanu nga jëm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 bul fàtte ne sàmbalaw bul fàtte ne lii na ci sa loxo ci nguur di xéewal ci yow laataa nga ci jot daa am ko faatu mbaa kuñ génne mbaa kuñ folli nga door cee jot ni ko jote noonu nga ko ñàkk yooyu ëllëg da ngay faatu mbaa ñu génne la mbaa ñu folli la mu dem ci loxol keneen te sàmbale woon dañ ko mujj génne ne ko nag kon farlul ci lii nga yor balaa xéewal gee génn ci yow mbaa mbaa yoo nga ciy génn naga nga farlu ci loola jariñ àdduna ak àllaaxira loola jariñ di jariñ ñi nga ñi ñi ñi ne ci sa ron ne ko lii laa lay dénk su fekkee jëfandikoo ko nii ma ko dénk de jàmm rek ngay am su ëllëgee mbedd mu neex jaaral foo neex te del nelaw te bu sellee ngir yàlla it texale la jël si diggante sa borom su fekkee jëfewoo ko nag fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon muy dénk boo xam ne bu matale la dañ tënk nañ ko lool sa waay mënoon na gën a yaatu ci liñ ci mën a déggee ci suñ jamono ji nu toll kon war na képp ko yor ndombal tànk ku nekk ñu bindal la ko ca làkk wa nga dégg saa boo nga nafar ko li ci nag mooy ñëw ci ndigal li sëriñ bi joxe woon te lim ci lu mooy rek lu jariñ bindeef yëpp mooy ñaari xutba yi nga xam ne moom la euh, sëñ Maamun bu sa war a def ci kanam tuuti ñu layalal ko ci wolof te lépp nag gannaaw day lu jëm ci bindeef yi jëm ci jullit ñi lépp day ndénkaan yu bàyyi ko ci sëñ Tuubaa kon dana baax nit ñi xam lañ cay wax moo tax mu joxe ndigal lu jiitu sëñ Maamun da agsi ñu leeral ñaari xutba yi mu war a jàng leer ko ci wolof boobu asee buy wax arab nga xam ne lii muy wax ci arab mooy leen doon leen doon leeral léegi ci wolof xutba bu njëkk mi ngi tàmbali ci sant yàlla maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moonu gindi maa ngi sant sunu borom mi nga xam ne dafa digle ay ndigal te ndigal yim digle mu lëkkale ko ko ak i dëxal waaye tere it ay tere tere yim tere it mu lëkkale ko ki tëkku mu ne waroom xel yi nag bañ déggee lool bañ gisee nag yàlla digle dële tere tëkkoo dañoo daal di farlu ñoom gaawantu jëm ci topp la yàlla digle waaye teet la mu tere tey ju léegi salmal ci ki si si naam sa mi nga xam ne mooy ngeen ji képp kuy gindee jëm ci yàlla di ngeen ji kuy jubale ak wane yoon ak ñoo ñam koy saxaabaam yi nga xam ne dañoo tànn kërug àllaaxeer ga nga day des amul fu mu yem mu gën leen àddina ji nga xam ne kër la guy jeex lu gàtta gàtt la ak képp ku leen topp nag ci seen rafetal googee ba ci bis ba nga xam ne ci yàlla ci la yàlla faye eh, kenn ku nekk jëfam <coughs> doomu aadama ci sun doomu aadama ñekk di fay jëfam jëm ñu jëf ci jëf <coughs> mu ne gannaaw loolu nag yéen jaami yàlla yi na ragal yàlla te moytandi ko seeni noon seen noone noon ba ca gën a tar ak noonoo gën ca doy waar mooy seeni bakkan seen bakkan yi nekk ci seen biir ndax bakkan dafay noon bu ne ci biir doomu aadama tamit noon bu ñu bëgg lool mun waaye mooy noon bi gën a tar ak nono kon na ngeen ko moytandiku ci ay waram te ngeen xam ne àdduna nag lu gàtt gàtt la luy jeex la as ndiiram moog daanaka lu amut ayam te dunduk àdduna gi nag lu dara lu may ban bànneexi war rek wamal xayaatu dunya illa mataaul xuruur kon na ngeen wëlbati seen yitte jëlee ko ci taa rafet rafeti àdduna jàppee ko ni lu amut waaye na ngeen jëmale ko nag ci seen borom bi nga xam ne mooy moo leen méngale lépp luy xéewal ci mooy mooy ki leen di méngale xéewal xéewal gu sax dàkk na goo xam ne da ko waajalal ñi nga xam ne ñooy ñooy ñoom la méngoo seeni mbir muy jullit ñi te mucc ci mbugal mu mu sax mi nga xam ne itam ëllëg amul fu mu yam te mooy mbugalum sawara bu dee xéewal gam ñu dencal mooy aljanna bu dee mbugal ma mu tëkkoon ak ñi mu tëkkoo mooy sawara te mooy ñi nga xam dañoo dañoo won gannaaw seen boroom won gannaaw itam ay ay ay ay ay tànneefam loolu mooy xutba bu njëkk bi bu ñaari bi mu wax ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moonu gindee ci alxuraan ak sunna waaye nag jàpp kollee suñ digganteek moom maanaam jàpp kóllëre ci ci jàpp ci kóllëre ci ci ñu roy ci lépp loo ne yun saa sam saa sam daana ko def euh, te sunnal ko daana ko def te digle ko mbaa mu sunnal ko wax ne noo ngi seer na kenn du buur ku ma yàlla moom rek teyit moonu tànnal islaam muy diine ju ñu gërëm waaye tam mu defal nu xéewal ba mu yónnee ci noonu yonent boo xam ne ummi yu la amiin la yonent boo xam ne mënut a jàng waaye nag ku ku la ndax sunu ma ma xéewal jul ba ma yónni ba ma leen xéewalal ba ma yónni tax ma yónni ci ñoom ab yonent boo xam ne day day diine alquran kon di ko yonent saas ma xéewal la ci noonu ma ne xam ne àdduna it daanaka jeex na daanaka te luy wëlbati ko lu jeex tàkk la te daanaka it jeex na te it mandarga yi tegtale ak jeexam loolu leer naññ loo xam ne aajowoowul indi ay lay wala ay tegtal lu ñëpp teg bët la mooy ki gàtt xel nag mooy ki nga xam ne dafa jàppe àdduna kër bakkanam moom ko ba mu soxla woo ci àdduna moo xam lu xeebu la moo xam lu màgg la waaye ki am xel nag mooy kii ko dëgg dëddu woon ko gannaaw teg ko ci bitim loxoom nga xam ne mooy ki nga xam ne saa bu yandoo defe na du fanaan saa bu fanaanee defe na du yandoowaat teyit muy sax sax nag ci sunna mooy takkook sunna sax ca dàkk ci lépp lu muy jëf moo xam jëfi aadaam moo xam rawatina jëfi diinam lépp mu di ko dëppale ak sunna si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey mooy nag bépp bidaa ak gépp cànkute bépp bidaa ak gépp cànkute ak lépp lu siiw nag mboolam mépp di ko def tàddu noona donte ñëpp nga camaas itam nga moytu loola rawatina nag li nga xam naa nag tasaaroon ci jamono yi nu toll te siiw bu dee suñ jamono ji mën nañoo wax ne réseaux sociaux yi nga xam ne lu lu daanaka lu ne nga ca ñëpp marché ca nga xam ne mbir ma naa ko ñëpp ne ca nga jàpp ne lii dëgg te fekk du dara tey lépp nga nga jëfandikoo li suñ ba wax ne defal naa leen ci yonent bi royukaay boo rafet rafet ci képp ko yaakaar yàlla yaakaar bis penc waxit ci ci beneen aaya lépp lu ne yonent bi indil ci diine ci am njàngale ci ay tegtal na ngeen ko jël jëfandikoo ko lépp lum leen tere nageen ko ba kon lu mu digle la ca man lépp ba fa sa kàttan yam na ko def lu mu tere nga ba lépp yàlla na suñu boon defal tawfiq te defal leen ko ci xemenloo loo mu leen xemem defal gi mu leen defal xemante ci yéntu saaslam waaye ko waaye na bari bari itam lu ngeen di julli ci moom na bari lu ngeen julli ci moom ak sërmal ci moom yàlla na yàlla jéggal te jéggal leen jéggal mboolem jullit yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 الفلاح الحمد لله الذي أمر فوعد ونهى فأوعد وسارع لمها إلى امتثال أمره واجتناب ما عنه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل من هدى إلى الله تبارك وتعالى وأرشد وعلى آله وصحبه الذين اختاروا الدار الآخرة الباقية على هذه الدار الفارقة وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الذي يجازى فيه بعمله كل إنسان أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وخذوا حذركم من أعدائكم وأعداء أعدائكم نفوسكم التي بين جنوبكم واعلموا أن الدنيا قصيرة الأمد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فاصرفوا هممكم عن زهرتها التي كالعدم ووجهوها إل ووجهوها إلى مولاكم الذي هو أولى بكم تفوزوا بالنعيم المقيم الذي أعده لأوليائه وتنجو من العذاب المقيم الذي أعد للمعرضين عنه وعن أسويائه الحمد لله الذي هدانا بالكتاب والسنة وأخذ علينا ميثاق الاقتداء بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة نشهد أنه لا إله إلا الله الذي ارتضى لنا الإسلام ديناً ومن علينا إذ بعث فينا نبيا أمنيا أمينا أما بعد فيا أيها الناس إن الدنيا قد آذنت بالانصراف والرحيل ووضحت علامة فنائها ولا تحتاج إلى برهان ولا دليل fal axmaqu man malakathu fastaxala bima fiha min xaqirin wa jalil wal aaqilu man araba anha فجعل إذا قال فيها ظن أنه لا يبيت وإذا بات ظن أنه لا يقيل يواظب على سنته ويلازم ويجتنب كل بدعة وضلالة وكل ما شاع في الولائم ويترك ما عم وشاع في هذه الأزمنة من المناكر عملا بمقتضى قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة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 akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم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 zaalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa'u wallaahu zul fadlil aziim masalul laziina hummilu tawraata summa lam yahmiluuhaa kamasalil himaari yahmilu asfaaraa bi'sa masalul qawmi laziina kazzabuu bi aayaatillaahi wallaahu laa yahdil qawma zaalimiin qul yaa ayyuhal laziina haaduu in za'amtum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 allahu akbar subhanallah allahu akbar allahu akbar alhamdulilah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina يديك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقي من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا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 سمع الله لمن حمده allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah asalaamaaleykum asalaamaaleykum